aja mu ngi noonu cinquième combat de la soirée fii ci arène nationale diggante Boy Gueye bu écurie Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Bouna Marassa bu Malika Mbooloo ñaari mbër yaa ngi noonu Bouna Marassa moo ngeem boo ngeem lu ruus di wan ñu kanam ki nga xamante mooy Boy Gueye moo ñu ngeem boo ngeem bu blanc bi daal ñuy wan ginnaaw attention ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne sa pied droit nga teg attention Bouna Marassa dox na ci kawam ñu ngi léew too ñaari mbër yi Ama Rasta Boy Gueye attention Bouna Ama lu mu bëgg Bouna Ama ngi dox Bouna lu mu bëgg Bouna lan la bëgg Bouna ngi dox attention Bouna door na benn épercule Bouna door na benn épercule attention Boy Gueye fay na Boy Gueye attention doon te nanu benn épercule léegi léegi waaye tey Bouna Maras attention naam arbitre bi arbitre bi daan na xam toogal Boy <laughs> Dieye Bouna Maras mbokk yi waaw waaw naa attention Bouna jël na ko attention Boy Dieye ngay door Boy Dieye ngay door Boy Dieye attention Bouna ma kaawoon na kaawoon na waaw kaawoon na kaawoon na kawana kawana boy puna, buna boy gay buna attention boy gay buna takaliko bañal non non buna xalé nañ jangi xex ha nañ jangi xex buna eh, ñam may ku way nañ dug ci sali out entraîneur ba ñam eh, may ku ñam may ku jël may ku yo xamanteni ya, ni yaakaaron na ne mu ngi ci suuf xex bu bu lay sonal borom lool la démé xex lamb day tollu fi ci am door fay ma sha Allah bo xalé rek xamni ñam ñaar dum ni nga xamante ni mooy Boy Gueye jàpp na li nga xamante ni mooy ngemb gos euh, loxo gosam la jàpp ci ngemb ki nga xam ne mooy Bouna Marassa attention Bouna wàññi dóor Bouna daw na jël na dóor attention bañ na bañ na Boy Gueye Bouna Marassa Bouna Marassa bal na ñaari loxoom Boy Gueye jàpp na am na ngemb attention Bouna Gueye Bouna maa ngi mu ngi doon attention remplacé ba non non la ko bëggoon def remplacé bañ na Bouna Marassa Boy Gueye ñaari mbër yi Bouna Marassa cinquième combat de la soirée ci arena bu Pikine Boy Gueye Bouna Marassa nañ taxaw Boy Gueye mu naa ma daa mel pour ñu yegg sori na dañ ko yegg dafa sori attention waaye Boy Gueye bu ñu gën saa bi na songale na ko daat na ko jël waxoon naa la fa nga yegg sori na ko yegg sori daa sori ko bu naa ma yegg dafa sori ka ci duur ka ci fa maa la ko na ko zongale ko daan ko eh, bu naa ma daan na Boy Gueye ay waay bu naa ma daan na Boy Gueye naa ma bu ñu dooroon metti daan na Boy Gueye waaw waaw gira man ñamoon ñami metti daan na Boy Gueye eh. Boy Gueye